Sénégal Mais c'est la première fois que nous organisons élections locales locale. yàlla xam na ni ay élections locales am na fi a tàyyi kon kenn mënul wax nga organiser 2022, particulière dafa compliqué ba wara tax opposition bi yewi Askan bi, plus particulièrement sen ay liste ñu koy rejeté un peu partout ku gis ñi tok ci table bi xam sen expérience ci organiser élection def ko ba tàyyi ci conditions yi gëna compliqué que conditions yi ken mosu ci lajji ci benn commune ba ñu naan tey ay commune commune ak ay département wu département seen coalition dañ fa am problème problème bi gën a yéeme ngeen suivre que mooy bi nga xam ni moo am Matam Matam umpul kenn ni département bi nga xam ni la dafa am solo pour opposition bi te ca njëlbeen lépp luy disposition yu opposition bi waroon jël pour encadrer ay listam mën ko déposer dans les délais avec ses mandataires disposition yooyu opposition bi jël mais ki nga xam ni moo doon mandataire bi ñu njëkkoon choisir jour bi ñu waree déposer liste yi boobu la jógee coalition que Askan bi dem coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu amee njot ci rapprochement bi nga xam ne mi ngi doon am entre moom ak responsable ya fa ne ci bis boobu ba ñu waxtaanee ak leader yi toog fi lañu génne beneen liste de mandataires maa ngeeg trace liste boobu ban waxtu lañ ko envoyé parce que nag ay professionnel la du ñu def yëfu amateur moo 19 h 42 le maire est là en tant que mandataire national, man m'a envoyé mail au préfet du département de Matam qui bi nous concerté au ba Nico mandataire il faut que nous nous liste nous envoyé mooy annule annuler liste boobu remplacer liste boobu kon nous ñu envoyé le mandataire Hubert bees et Askan mieux yamuñu ci envoyé que moom dong mandataire yi ñu tànn ku nekk ci ñoom individuellement dañ la envoyé sa lettre d'accréditation mandataire yooyu dem présenté wu ci sous-préfecture ak préfecture avec seen lettre d'accréditation yuy wane ñi ñoom ñooy mandataire yu bees yi ginnaaw bi ñombe boobu amee mais ñoom ñëpp ñu refuser leen ñu leen du leen recevoir déjà ci biir préfecture yi wala sous-préfecture et etul leen may possibilité faire def liste pour Yewwi Askan li gën a garaaw ñu ni balaa ñuy changer mandataire bi ki nga xam ni doon mandataire départemental bi di Michel Ngom tant que ñëwul duñu changer mandataire ki nga xam ni xëy na ci suba ni légui dem na Benno Bokk yakar nga mom ngay xaar mu ñew pour changer la ay mandataire yewi Askan alors qu'à 19h42, il n'était pas encore minuit. Vous convenez avec moi que Amoul, Ben horloge pour 19h42 mooy minuit fenn ci le Sénégal 19h42 à Dakar ça ne peut pas être minuit à matin. je pense décalage horaire boobu yegg le alors pour dire tout simplement que nous doy nous avons introduit recours demb à 11h50 il ci cour d'appel bu Saint-Louis pour que nous mën arrêter loolu nga mon ni am te vous, boo génnee foofu en cours au niveau de Sam Notaire à Golf Sud nga xam région de Dakar département de Guédiawaye ku xam ku nekk xam na département bu am solo bi nga xamee ni sunu mandataires yi dem na di liggéey ak préfet bi nek fo mais ay service am ñi nga ni sunu mandataire bi ñu demee bi ñu gisee ni yenn dossiers complet dañ la possibilité de compléter et de revenir bi ñu compléter dès ñu leen di indil ay jafe-jafe ci complément yi loolu lépp pour rejeter et ñoom may xamal léegi ak monsieur Thiam que ni ñoo ngi koy waaj officialiser pour rejeter liste Yewwi Askan Bi ci ñaari commune yu am doole ci biir département de Guédiawaye loolu lu muy tekki ak ku nekk ci département boobu loolu di beneen mbir te bi mu amee en tant que mandataire national man sama bopp sous préfet ba fa ni que li ñu may wax ni mom ngay waja def rencontré naa ci yenn gox mais sous préfet yi fa nek bima waxé ak ñom ñoom danoo accepter liste bi ndaxte li loi moko wax am ngeen ci 48 heures yi ci top possibilité ñeu compléter possibilité avons également lii nga xam wax ni des na nga xool ba mu ba démb d'accord ngeen ni ñoo ngi encore ci 48 heures parce que mercredi la woon vendredi loolu di wane ni ñoo également ci lu la ville de Pékin, c'est encore plus grave bi ñëwé dañ leen wax yu neuf yu neuf femmes la il faut ngeen compléter ñu dem dossier ba mu baax ñëw indi compléter leen duñ nangu duñu jël dossier encore utiliser que comme motif de rejet ville de Pikine a également ka fa nekk am ca gannaaw rek da ngay gis amal ak la ci que dans la presse le président Cheikh Yum est là fa la jóge ñoom dañ refuser le mandataire nous accéder pour mën déposer pour mener également expliquer ou préfet ba pour valider liste bi nga xamni ni liste yewi Askan ñomit introduit le recours pour ca Thiès problème bu ñu mel am ko problème yu ñu mel am ko Saint-Louis ci département de Saint-Louis am nañ ko ci commune

ba ma bàyyi keneen signé mu dem léegi ma ni léegi lii parce que keneen moo waroon signé que mandataire xam nga loolu aussi ay caaxaan boo xoolee département de Saint-Louis la xewee boo xoolee Kaffrine xam également lu ñu mel moo am au niveau de Gorée am au niveau de Foundiougne am au niveau de Médina Yoro Foulah am au niveau de Balo am dans beaucoup de communes yi nga xamni ni ñoo ñoo nekk ci biir Sénégal bu ñu doon continuer limbi conférence de presse bi point de presse bi yépp ci loolu lay yem mais li ëpp solo mooy boo remarqué benn mbir nga gis muy génnee fu ne nga xool dénominateur commun mbir mi moy meuna tax nga am la bonne interprétation des choses la bonne compréhension mais am également la bonne orientation du point de vue décisionnel motax ce matin loolu moo nu xaw tardel touti dañu nekkoon ak sunu ay avocat fi ci souf waxtan ak ñom ci recours yi nga xam ni fii leeg dans déposer déposé lépp ndaxte am 72 heures délai franc pour me déposer un recours ci cour d'appel yi nga a zone yi problème bi am zone yooyu cour d'appel yooyu ñoo di couvrir suñuy avocat ñoo ngi ci travailler et dans les prochains jours dans ko déposer FEP. mais lii ñu jotal lim dans l'un des recensement complet dans toutes les communes envoyez les ko qui ci a une bonne appréciation de cette forfaiture bi nga Ken, kenn le président Macky Sall et certainement tout à l'heure c'est mon collègue dans le ci aussi. donc pour moi, que tënkee ci un ci lu